Yowaana saar juróom benni fan laata màggalu bésu jéggi ba yéesu dem na betani dëkku lasaar mi mu dekkal foofa ñu defaral ko fa reer màrt moo ko doon séddale te lasaar bokkoon na ca gan ya noonu maryaama daldi jël liibaru laj koloñ ju raxul ju ñuy wax naar tey jar lu bare bari mu sotti ko ci tànk yeesu ba noppi fompe ko ak kaarawam xeetu lajkoleen gi gelli ci kër gi yépp kenn ca taalibe yéesu ya muy yudaa iskariyo mi ko nara daldi ne lu tax jaayu ñu lajkoleen ji peyu atum lëmm jox ko miskin yi waaye bi muy wax loolu xalaatul woon miskin yi ndaxte sàcc la woon moo yoroon boyetu xaalis bi te daan ci sàkk waaye yéesu ne ko bàyyi ko jekkoon na mu denc ko ngir bés bu ñu may suul miskin yaa ngi ak yéen bés bu nekk waaye du ngeen ma gis ba faw bi ñu yégee ne yéesoo nga fa mbooloom yewut mu bare daldi dem betani yéesu rekk yóbbuwu leen fa woon waaye dañoo bëggoon a gisaale lasaar mi yéesu dekkaloon saraxalekat yu mag ya ci ne dañuy reyale lasaar ndaxte moo waral yewut yu bare dëddu leen gëm yeesu ca ëllëg sa mbooloo mu bari ma ñëwoon te màggalu bésu jéggi ba yëg ne yeesoo ngi jëm si yerusalem ñu daldi jël ceri garab génn di ko teeru ñuy xaacu naan osaana yow mi ñëw ci tuuru boroom bi ku barkeel nga na yàlla barkeel buuru israyel yeesu wut cumbur war ko ndaxte mbind mi nee na bu leen ragal waa siyon gis ngeen seen buur a ngi ñëw war mbaam mu ndaw yooyu yépp taalibe ya xamuñu woon ca saasa lu mu tekki waaye ginnaaw bi ndamu yéesu feeñee ñu fàttaliku ne mbind mi yégle woon na loolu ci moom te amal nañu ko ña nekkoon ak yéesu ñépp bi muy wooye lasaar mu génn ca bàmmeel ba te mu dekkal ko demoon nañu nettali lañu gis looloo tax mbooloo ma teeru ko ndaxte yëgoon nañu firnde boobu farisiyen yi nag di waxante naan gis ngeen mënu leen ci dara ñépp a ngi koy topp ca mbooloo ma amoon na ci ay grek yu bokk ca ña ñëwoon yerusalem ngir jaamu yàlla diirub màggal ga ñëw nañu ci filib mi dëkk betsayda ci diiwaanu galile ne ko sang bi dañoo bëggoon a gis yeesu filip dem wax ko andre ñu ànd waxi ko yéesu mu tontu leen ne waxtu wi ñu war a feeñale ndamu doomi nit ki jot na ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax fii ak pepp dugub ji wadd ci suuf jaarul ci dee du mën a weesu li mu doon pepp dong waaye bu deeyee dina jur pepp yu bari ku bëgg bakkanam dina ko ñàkk waaye ku ko bañ ci àddina si dina ko denc ngir dund gu jeex gi ku bëgg a doon sama surga na ma topp bu ko defee fu ma nekk fa lay nekk moom itam ku may liggéeyal sama baay dina ko teral léegi nag dama jàq lu may war a wax mbaadu dama naan baay musal ma ci li war a xew waxtu wii ñëw déedéet ñëw naa sax ngir jaar ci waxtu woowu baay màggalal sa tur noonu ñu dégg baat bu jóge asamaan naan màggal naa ko ba noppi te dinaa ko màggalaat mbooloo ma fa teewoon te dégg baat ba daldi ne dënu la woon ñeneen naan malaaka doon wax ak moom waaye yeesu na leen taxuma baat boobu jolli waaye yéen a tax atteeb àddina si jot na léegi ñu daq malaaka mu bon mi jiite àddina si te man bu ñu ma yëkkatee ma tiim suuf dinaa wootal nit ñépp ci man ci baat yooyu la doon misaale ni mu war a faatoo mbooloo ma tontu ko ne jàng nañu ci suñu téere yoon ne almasi bi dina sax ba faw kon yow nan nga mën a waxe ne doomu nit ki dina yëkkatiku kuy doomu nit kooku yeesu ne leen leer gi dootul yàgg ak yéen doxleen ci bi ngeen dee am leer ngir lëndëm ban leen a bett ndaxte kuy dox ci lëndëm doo xam foo jëm kon ci bi ngeen dee am leer gi gëm leen ko ngir ngeen doon doomi leer bi mu waxee loolu ba noppi yéesu dafa dem nëbbutu ji leen firnde yi mu leen won yépp taxul ñu gëm ko ngir li yonent yàlla esayi waxoon am boroom bi ana ku gëm sunu waare kan la borom bi woon dooleem mënuñu woon a gëm ndaxte Esayi dafa waxaat ne yàlla dafa gumbaal seeni bët def ba ñu dëgër bopp ngir seeni bët bañ a gis seen xel bañ a xam ñu bañ a waññeeku ci man ngir ma wëral leen Esayi dafa wax loolu ndaxte gisoon na ndamu yéesu te mu ngi doon wax ci ay mbiram fekk na ci biir njiit yi sax ñu bari gëmoon nañu yéesu waaye farisiyen yee tax fesaaluñu ko ndaxte dañoo ragaloon ñu dàq leen ca jàngu ba ngërëmu nit te leen gënaloon ngërëmu yàlla yéesu yégle ne ku ma gëm gëmuloo ma waaye gëm nga ki ma yónni ku ma gis gis nga ki ma yónni ni ak leer laa wàcc ci àddina ngir ku ma gëm du des ci lëndëm ku dégg samay wax te topp leen du man maa koy daan ndaxte wàccuma ngir daan àddina waaye dama ñëw ngir musal ko ku ma beddeeku te nanguwul samay wax dina fekk fii li koy daan sama jàngale koy daan keroog bés bu mujj ba ndaxte waxuma ci sama coobare waaye baay bi ma yónni ci boppam moo ma sant li ma war a wax ak li ma war a jàngale te xam naa ne li muy santaane day joxe dund gudul jeex kon li ma wax dama koy wax ni ma ko baay bi sante